mbokki internet SENactu TV ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal di leen wax ni rek dal leen ak jàmm fii seen chaîne YouTube SENactu TV tey nag dañuy daal di ñëw yéen ci li gën a fës ci xibaar yi xibaar yi ndiki tey dinañ ko door ak coupe du monde bi am foofee ca Qatar waaye nag dañuy daal di dem ba démb daal di jël li nga xam ne moo di match bu doxoon ci diggante Sénégal ak Angleterre ginnaaw nag ba ñaari équipe yooyu qualifié woon daal di génn seen poule heure heure Sénégal équipe bi di nga xam ni moo di équipe nationale bu Sénégal ak équipe bu Angleterre jot nañ daal di jongante naka noonu nag ci première mi bi li nga xam ne nag mooy équipe bu Angleterre daal dina door 2-0 euh, Sénégal euh, mu daal di koy dooraat beneen mi-temps bi benn bal ci zéro mu doon nag en tout 3-0 daal la Sénégal daal di la Angleterre daal di mëne Sénégal ba yóbbee li nga xam ne nag moo di Sénégal génn coupe du monde am fi mu tollu temme nag Sénégal umilier nañ ko dóor nañ ko gagné nañ ko génn nañ ko ci bile coupe du monde maanaam Sénégal éliminé. Euh, ci continent Afrique nag benn pays dong ñu des bu ñu représenté foofee ci coupe du monde bi am ci Qatar Doha 2022 bi lee muy Maroc xanaa nag di ko souhaiter rek une très belle parcours bi lépp defet nag métti na ñëpp métti na képp kuy sénégalais rek métti na képp ku doon supporter Sénégal ndaxte même bu fekkoon Angleterre équipe bu mag la woon yaakaaroon nañ rek danañ am dara waaye nag équipe boo xamante ni dafa def sans ay cadre yu magam ku ci mel ni ay Sadio Mané ay Bouna Sarr ay Saliou Ciss Euh, ku ci mel ni Gana Gueye gis nañ ko mu blessé moo tax démb feeñ na trop ci match bi waaye nag dañuy ñaanal gaynde yi ñu gën a ñibbisi si jàmm rek gën a préparé wu waat daal di jéem a gagné li nga xam ne moo di kan bu ñu jëm bi euh, bu 2023 rek daal di gën a préparé pour incha allah coupe du monde 2026 bi bu ñëwee rek ñu mën cee sori. waaye ndiki noonu rek ginnaaw nag ba ñu Angleterre daal di mënee ba génn ñëw ci bi lépp coupe du monde nga xam ne moo di Sadio Mané daal bind na ci ay. compte am réseaux sociaux di ñaax gaynde yi rek di leen wax ne rek masa coono xëcc bu dakkul dikk euh, vous avez muy moomay daal liggéey ngeen pour seen dëkk euh, waaye nag ndam dafa jotagul rek di leen wax ne rek dem leen préparé wu beneen yoon incha allah on revient plus fort ku ci mel ni tamit Bouna Sarr génn na daal di def tamit euh, même chose bi nga xam ni kii di Sadio Mané moom it mu blessé comme Bouna Sarr aussi boo tax nag ñoom dootuñoo dem ci mondial bi lee génn nañ ko def ku ci mel ni nag suñu capitaine équipe di Kalidou Koulibaly génn na wax rek ne ñoom def nañ lu ñu mën mais dañoo taseek équipe boo xam te ni c'est une très belle équipe muy l'équipe de l'Angleterre nekk équipe bu mag mën football moo tax nag mbir yi daal di demee nii di wax rek kontaan na ci kenn. kenn rek euh, ñoom ñëpp kenn ku nekk rek kontaan na ci ñoom ndax euh, képp ku nekk joueur rek demoon ci bi lépp compétition amoon nga yéene àgg fu waaye amoon nga yéene tamit nag daal di jël ndab li indi ko fii ci réew Sénégal waaye nag lii moo gën te nag lii la yàlla dogal def nag du ñu man mais tamit euh, dañoo tajeeg équipe boo xamante ni nag moo leen man noo noonu nag moom mais nga xam ne moo di Aliou Cissé ginnaaw sax nag moom fan ni ñu génn yëpp sax dafa feebaroon li ci tofook ñaari fan ñu jëm ci bi final moom mi suñu coach bi di Aliou Cissé dafa daal di feebaroon waaye nag euh, feeñ na ci moom ndaxte tamit dafa jeex waaye tamit laata match bi gis nañ ko sax mu xaw a toog mais ginnaaw bañ demee nag affaire yi commencé tar gis nañ ko mu wàcc ci biir terrain bi def na lu mu mën ndax nag ku la indi sacre continental yóbbu la deux fois consécutive euh, coupe dañ koy daal di ñaanal mais moom tamit génn daal di wax ne rek bi daal li mu leen laajoon lii def nañ ko lii defuñu ko mais tamit c'est bon dans l'ensemble euh, kontaan na ci doomam yooyu yooyu noonu doon football kontaan na vraiment ci frère am yi tout ñi nga xam ne encadré ko moom daal def na lu mel ni genre ab euh, euh, conférence de presse mini conférence de presse parce que journal journaliste ko doon ne ko doon tàllal micro muy daal di wax euh, ginnaaw ba ñu daal di gagné Sénégal ba mu ñibbisi di ñaax rek joueurs yi ñu gën a góorgóorlu te nag bu ñu leen déstabiliser lii moo waroon am am na la prochaine ils reviennent plus fort waaye bu ñuy daal di jóge ci bi lépp coupe du bu ñu ñaanalee joueurs yi euh, bonne arrivée ndax dinañ leen euh, teeru ni ki suba fi ci réew Sénégal dañ leen di ñaanal rek euh, bonne continuation ñu gën a liggéey daal di gën a góorgóorlu rek pour yeneen compétition yi dañuy daal jógee ci bi coupe du monde daal ñëwaat suñu réew Sénégal dem assemblée assemblée nationale nag ku nekk gis na lu fa xew ndax ginnaaw ba nga xam ni kii di député bi di Amy Ndiaye jot na yëkkati ay prof ay propos yoo xamante maanaam rafetul teg ko ci kàddu bi di sëriñ Moustapha Sy ba tax ka door nag moom mee di Amy Ndiaye jot na fayu nakate dafa nekkoon en état de grossesse daal di xam waaye nag ba ñu toppee certificat de médical bi lee docteur bi rek dafa révélé daal di rek nag moom mee di Amy Ndiaye dafa am ay risque de d' maanaam la mu ëmb ca biir ba rek à tout moment mën na yàqu ginnaaw nag euh, émotion yu mu mujjee si ak na mu demee foofa ca assemblée bu nationale bu Sénégal ba tey biir assemblée ndax ki nga xam ne moo di procureur général de la république bu Sénégal dafa wax ni rek euh, pour rek ñu dal di euh, teg ay daan ñaari député yi di Massata Ndiaye ak beneen député bu Pire ginnaaw nag incident bi xew assemblée moom mais nag di Barthélémy Diaz ginnaaw nag ba mu amee temps de parole yëkkati na li nga xam ne mooy ay vérité jëmale ko ci procureur national bu Sénégal moom nag xamoon na procureur yi lii boo leen ko defee tegoo leen ko fenn ci yoon ndaxte nag da ngeen a war a corriger li nga xam ne moo tax xew biir ensemble moo gën ngeen di bàyyi ba ñu tase ci fait accompli yi ngeen naan da ngeen am looy def ak loo leen di te lu mel noonu yàgg na biir ensemble mosoo leen sanctionné mais comme que rek dañoo laal kenn ku bokk ci parti au pouvoir da yi agressivement daal di jóg sànni ko nekk biir assemblée di ko saaga di wax di n'importe quoi nag ba moom mee nag di baax ak euh, député bii nii ñu gën koo xam ci kur Macky jot jokkalante ay kàddu biir assemblée assemblée daal jamono ji rëb na ba fu rëb yamoo moo raw sax banlieue lii nag moo raw jàmm gën nate assemblée nag xeex bi xulo beeg sànnante yeeg saagante beeg yàkkante bi kenn xàmmeetul suñu assemblée nationale bu Sénégal waaye nag dañuy nag ci langue politique ndax ki nga xam ne moo ji Adji Sarr ak Sonko dinañ wuy ji ci décembre bile ñoom sax jàppal dañ leen leen a jàppal ab date rek ñu daal di def ab confrontation ba tax na nag ñaari parti yi nag ñu ngi préparé nag Sénégal nag ñu wax nag xanaa enfin une bonne nouvelle ndax nag au moins ñu daal di jéem clore li nga xam ne moo di dossier de viol bi dox ci diggante ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ak Adji Sarr ndax mi ngi bëgg jege da at te mi ngi bëgg yàgg ak tournant yi fi am yëpp euh, gis nañu lépp lu fi xew diggante ba nga xam ne ki nga xam ne moo di Adji Sarr jot na daal di génn viol ki nga xam ne nag moo di Ousmane Sonko ñu yëg a wàcce ba mordam sax di si am ba Sénégal sax di ci jot a tàkk nag euh, fi mu toll nag internet yi nag ñu ngi réagir partout dans le l'étoile euh, di wax rek nag bi lépp dossier enfin dañ ko war dañ ko war a tëj nag une bonne fois pour toutes parce que son dañu ci am Adji Sarr indil Sonko dañuy ñaan nag bi lépp confrontation daal di joxe nag daal di leer euh, li nga xam ni nag moo di yoon daal di ku nekk rek xam fi nga féetee ñu clore loolu daal di jaablu feneen parce que fi ñu toll tembe Sénégal am na yeneen priorité yu dul Adji Sarr ak Sonko ndax duneen bi metti na ñi amuñu fu ñu dëkk amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan ñoom nag ñenn ci ay internet rek li ñuy wax lañ leen daal di rapporter fi seen chaîne YouTube SENactu TV tey ci langue nommé à la tête de l'OFNAC njiit bu bees nag bu ñu tabb foofee ca OFNAC Serigne Bassirou Gueye rek jàpp leen fu ñu tollu temme mooy daal di njiit foofee ca OFNAC coowal Adji Sarr Sonko nag ki nga xam ne moo di avocat di wuyoo ci turu maître Clédor Ly daal di na gid rek daal di wax nee bi lépp juge nag bu yor dossier Adji Sarr Sonko bu defru li nga xam ne bu defru woon bi lépp confrontation donc bi lépp confrontation moom la yoon di woowee supplétif ngir rek parce euh, que dossier bi ñu daal koy mën a amal ab mbucc mbokki internetu seen actu tv nag ñu leen di indiloon ci li gën a fës ci xibaar yi dag daje ëllëg waaye laataa loolu way leen di abonné te bu leen di fàtte di appuyer ci cloche de notification pour di mën a am suñu ay vidéo à la prochaine ci yeneen di break fii seen chaîne youtube seen actu tv la au cœur de l'information merci à la prochaine